Cheikh Sane palu gi ñeel gox-goxaan yi bu 23 janvier 2022 ci Sénégal am na du ñàkk leneen lu ca laxasu lu aji politique yi waxul sunu ko méngaleeg nanuy ngat-ngatee ngir palu gi ca jiite doon lu diis lool diggante yi nag tàmbali na di ñagas observateur waat ci ndajeem Khalifa Ababacar Sall ak Soham Wardini euh, benn ñu ne ndaje ma bu gàtt la woon yàggul ba ca topp xumbul woon lool teg ci it ñu ne lay wa Khalifa Sall génneel soxna di Wardini ci li waral mu taamu Barthélémy Diaz mooy ay pression ak yeneen du nag lay wu yey soxna si di Sohamel Wardini nii ndax observateur nee na ba tey moom soxna si mu ngi ci xeex bi ngir ndakaaru libération ne waaw Soham El Wardini taxawal na liste boppam ba daxa gajaga moom ñu ne yakk na lu mel ni xeme Xalifa Ababacar Sall ndakaaru nag bu doon ab jeet ñu ne am na butéel wala téere bayre bu baax ndax ñépp moom lañ bëgg a corowool buggaan gay daani ca la ne mbëru gëm sa bopp dudu waadit naka noonu di mbëru wàllu Sénégal Barthélémy Dias Abdoulaye Diouf Sarr tribune ne xareb juróom ya tàmbali na ci ndakaaru yéene bi fësale nataalu Abdoulaye Diouf Sarr buggaan Wade ak Pape Diop Vox Populi moom géewal Barthélémy Diaz Abdoulaye Diouf Sarr Bougane Gueye Dany Doudou Wade ak Mame Mbaye Niang yéenekaay bi ne xëccoo bi dina xumbute dagan ca nag Abdoulaye Diouf Sarr ñamu ko séqal duna ay ñeexi ñebbe combat beneen bu Vox Populi gis ne dina it metti lool mooy bay amee ca Kolda diggante Mame Boye Diao Abdoulaye bi Baldé ak Doura Baldé mortal combat la ko yéenekaay bi tuddee maanaam xeex bu ay bakkan di des ci waxin donte ñu ne Mame Boye Diao xëcc na ci wetam ay kàngam yu mag ca diwaan ga ci 2 bi source a moom lu ñeel waaye Yewwi Askan Wi séddoo bukki la fa gis ndax ñu ne Pastef moo gàddu nar wa ca gën a mag ci téeméer yoo jël juróom-ñaar fukk ya Le Quotidien mel ni ku ko naan déet bul fàtte Khalifa Sall ndax moom it séddu na ñoom mbër yi taxaw nag yépp ngir falu fanu waroon gën a jëmale seen programme seen liggéey mooy ci luy téye ndaw ñi fii ci réew mi ndax yéenekaay bi di réew mi nee na gune yi ñoom ba tey mbëkk mi ña nga cay wéy ca daanaka ñi cay waxam xaru ñoom gisewunu ko ni ndax ñu ngi wéyal ba tey ak yi yéenekaay bi fësale xay mag fanweer ak ñetti doomu Sénégal yeneen faatu ci ndox mi wàllu wér yaram président Macky Sall la mu fas yéene doxalee ci xeex bi ak coronavirus bokk na ci imposé passe sanitaire ci ñu bëgg a dem ci place mbooloo yi enquête yéene kaay jàllale kàddoo moom njiitu réew mi mu naan ca waruñu bàyyi ñi lànk ñàkk wala ñi ci booleb naatable ñuy na saxal effort yu mag ca yaatu yu ñu def ba fii ci xeex beeg coronavirus sàkku na moom président Sall ci ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr mu yaatal ñàkke mi ngir ñu yegg ci téeméer yu jël juróom benn fukk ya ñu ñàkku ci askan wi fileeg xaaju atum 2022 leneen ci yéene kaay di lu soxal kërug yoon yónnee wala jotum koppar gi di wéef gane si géew bi moom it jot na wàllam ci pexey njublang yi libération ne fukk ak ñetti njublang la takk der yi jàpp ci diggante Médina Géejawaay ak diwaanu Saalum ci kaw enquête jëm ci téeméer juróom fukki million yu ne fa mër yéenekaay bi de wéef benn kiliyaanam la njortal njublang gi ca Géejawaay moo waral takk der yi dem fa jàppi ko da doon jox secret boroomi compte wéef yi njublang yi doon lëngool di tibb yooyee ci lu lewul ñu jeexaleeg aar bi ak soppey musique waxtaan wu yaatu dox diggante observateur ak soxna Aïda Samb woykat wax na yu bari yu mu réccu ci àddinaam observateur ne jamono yi ci ginnaaw moom ay décembre dund na fi ay nattu misaal gi di génnuk àddina waaye juróom bu góor ci weeru juin weer ginnaaw si yaayam génn àddina waraloon ab diir mu dal di tekk dellu ginnaaw waaye ginnaaw si sunu borom ñëwaat ak mbégte bi yoon ak borom kër gu mu ko jox ba ni mu génnee ab way dib singal bu mu duppee jëkkër sama observateur ne liggéey bu am solo la ca booleel moom artiste bi ndax ci diir gàtt lu yées 24 heures single bi doon na numéro ci tendance yi mu des rek du ñàkk Aliou Ba jàngi woy ngir génne moom Jabar Sama. Savon de Marseille Alphée, CCPS, comptoir commercial de plomberie du Sénégal. déodorant Malaysia Umo, ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. mbokk jàngeen jëf. le code FIMA. RFM matin. RFM matin. émission bi Sénégal. FM matin 8h jot na ba tegal ñu dalal Seydou Nourou Ba ci xabaar yi ci wolof ci gàttal Seydou salaamaaleykum. waaleykum salaam Babacar Fall mbokk jàngeen jëf dal leen jàmm bisimilah ci xibaar yi gën na ca fës élection locale yi ñuy waajal janvier bi ñu dégmal ay waxtu na moom moo ci des ngir candidat yi fexe ba daw wutali fa ñu war a dem ngir déposer fa seen liste ci na xibaar yi ci 8h bi dinañ wax ak yéen lii di investissement maanaam tabb yi ci yenn ci ay maires yi rawatina fii ci Ndakaaru foofee nag nga xam ne Yewwi Askan Wi tànn na kii di Barthélémy Dias ngir ca bu Ndakaaru kii nag di directeur du commerce intérieur dal dina weddi luñ dal wax ne dafa am tooke ci suukar ci biir marché bi Oumar Diallo nag ne loolu xel mënu koo nangu di ngeen ko dégg ci biir xibaar yi xeex lépp luy jàngoro euh, Sida njiitam nag président euh, di makisal Sall nee na daal dina teg table gi ñaari milliards ngir euh, jàppal ñii di ay kuréel di ay organisation société civile ñuy xeex lii di jàngoro boobe ba ci gox yeeg goxaat yi di ngeen dégg tamit loole ci biir xibaar ci ay leeral ñaaral pàcc xibaar tàggat yaram yéen kay ak El Hadj Assane Gueye ci technique bi Abdoulaye Diop Yacine Pouy ci digital bi asalaamaaleykum. Seydou ay waxtu moom moo des ngir parti politique yeeg ñeneen daal ngir ñu fexe ba daw dem déposer seeni candidature euh, ci gox yeeg goxaan yi ndax tey ci minuit la ñu ka tëcc waaye tamit euh, tey daal ñu gis ne war nañoo dem déposer yooyu les partis seen melokaan ak li ñu bind ci seeni bulletin ngir su bos ba ñu mën leen a xàmmee waaye nag laata looy dal dañu ñëwaat ak yéen ci waxtaan lu jëm ci mairie yi tànneef yi ak yeneen fi ci mairie bu Ndakaaru nag mel ni fa la xeex bi nar a Guinée metti ni ki sax démb coalition Yewwi Askan Wi tànn na kii di Barthélemy Diaz ngir mu jiite fa bu ville leexal yeeg Cheikh Tidiane Diagne mairie bu Dakar moom la ñëpp daal di tegi gët ba tax na coalition de parti yi fi mu toll nii ñu ngay tàmmale di tànn seeni candidat yeewi askan wi ñoom seeni gët ñu ngi ko teg ci maire sortant bu Mermoz Dakar Sacré-Cœur di Barthélémy Diaz waaye ki nga xamante ni moo di Soham Wardini doon jamono gi maire mu Ndakaaru fas yéene ci deltu ginnaaw benn yoon ndax bëgg naa desandi ba tey ci bopp mairie bu Ndakaaru coalition benn bokk yaakaar ànd ak kii di Abdoulaye Diouf Sarr ñoom itam daal di samp seen nënd ngir fexe nañu foqatee gile mairie bu Ndakaaru wàllu Sénégal ñoom nag seen mbër moo di Doudou waaye ci yoonam itam dana ca fekk Bougane Gueye Dany moom mi nga xamante ni moom moo di njiitu gëm sa bopp Mame Mbaye Niang ànd ak plateforme Sénégal horizon 2035 moom tamit dafa fas yéene samp ndëndam ngir dal di jël maire bu Ndakaaru ci xayma lu toll ak nag juróom-benni candidat ñoom ñoo samp seen ndënd ngir fexe nu ñu jëlee mairie bu ndakaaru di capitale bu Sénégal. Cheikh Tidiane Diagne coalition Jami gox yi tànn na euh, ngir mu doon seen candidat ca mairie bu Kaolack kii di Fadel Baro moom na dafa jàpp ne daal jot na askan wi ci gox yeeg goxaan yi xam ne daal ndaw ñi daal lañu ñu war a jox yëf yi ngir ñu daal di gérer euh, affaire yi daal dimbali ba euh, suqali lépp dal loo xam ne activité la foofee Fadel Baro ci micro beeg Pape jaw donc yéen waa Kaolack xam leen seen doom yi jug nañ jiital kenn nit dañuy jël nit ku am alal dañuy jël nit koo xam ne dafa ñëw ne kaay ma xëpp leen alal ngeen topp sama ginnaaw ma continuer man rek may am yéen ngeen nekk di di ma leen ci cofal ndawu Kaolack yi ci seen diversité association yi toll ci lu ëpp fanweer di ay góor di ay jigéen ñoom ñoo ñëpp ñoo taxaw ci coalition de la jeunesse ñu ne dafa jot ginnaaw dëkk bi bu ñu essayé jël ay politiciens ñu jiital leen te taxul Kaolack jàkk ñu jël ay borom alal jiital leen gis nañ ko ci ay baba ñu jël ñu ne mag ñi ba ci sax suñ sëriñ sax essayé nañ leen ndax bii parce que sama avant avant Mariama di ñëw ñu ne nag léegi dafa jot ndaw ñi ñu tànnal seen bopp ñoom ñu essayé leen ñu ne Kaolack nañu essayé jël seen ndaw yi nga xam ne seen loxo set na ndaw yi nga xam ne kenn amul lu leen reproché ndaw yi nga xam ne jamono ju nekk ñu ngi rëdd ji pour seen dëkk bi jàng ñu ne ñoom danañ tafaal seen bopp pour xool naka la ñuy fexewo ba Kaolack jóg danañ wane ne suñu pas-pas ak suñu yëngu-yëngu ak suñu ngëm-ngëm ak suñuy pexe danañ jël suñu mairie utiliser mairie bi pour defar Kaolack pour wane ne Kaolack mun na am beneen xar-xaram directeur général bu ASP moom kii muy jàppale foofu ca Fatick di Matar Ba dina dogal boo xam ne jël na ko gannaaw Euh, daal ba mu tasek kii di njiitu réew mi ngir ay waxtaan am ba déggoo dal dem ki nag di Birame fay wax xamle ko ci euh, page am Facebook ni ki big ci guddi euh, ca mbakke moom yëf yi dafa dal di soppeeku ndax kii di maire bi di Abdou Mbàkke Ndaw dafa fas yéene am ñaaxeelu mandat ànd ceeg ñii di waa bokk gis-gis mu nag nekkoon ca coalition ànd nawle waaye dafa mujjee génn comme nañ ko daal xamle woon ci altine bi weesu ci nag xibaar yu mujj kam fa nekkaloon di uh, Serigne Abdoulahad uh, Gaynde Fatma dafa daal jël dogal jël liste boppam wuuteeg benn bokk yaakaar Pape Balla Gaye ci ay leeral. daanaka mbettaange la askanug Mbàkke daal di dund gannaaw benn fan ba nga xamante ne maire bi daal di nay samp ndëndëm ngir daal di bokk ci élection locale yi lee mu mel ne ko doon dawab forclusion gannaaw nga xamante ne ci ñetti fan ci weeru novembre bi dañu nar a ndar keppee lépp lu jëm ci dépôt liste yi lee moom maire bu Mbàkke nag foofee ca bokk gis-gis la daal di dem fare ji ngir daal di mën a fexe daal di des ci toogoom xibaar yu mujj nag daanaka ñàkk bokk ak allié de taille bi mu yaakaaroon di sëñ Abdourahmane Mbàkke Gaynde Fatma moom nag nag daanaka moo tax projet boobee ñu doon bëgg amal ngir daal di taxawal ab liste parallèle mujj la antu ngir daal di taxaw temm jàkkaarloog candidat majorité présidentielle ci commune bu Mbacké di Gallo Ba ak ñeneen loolee tax na sax bari na ci ñoo xamante ne ñu ngi faree ci coalition opposition yoo xamante ne am nañ lu ñu wax ku ci mel ne mandataire bu coalition gox yu bees di Pape Moustapha Diop mi jàpp ne lii day wone rek lajjëg ñi nga xam ne ñoom ñoo nar a xam ne kii ñu démarre pour moi dans la vie il faut avoir des convictions fortes il faut lay permettre doo njaaba njali jóge fii dal fee këtti këtti gars dañuy lijjanti rek. moom mu jàpp ne moom mooy candidat wu ndaw yi bokk ci ñi nga xam ne ñoo njëkk a déposé seen liste ca kanamu préfet Pape Moustapha Diop am njort ne moom moo nekk ki nga xam ne moom moo war a suqali département bu Mbacké. les deux candidats yi nga xam te ne bii ñoo fi nekk en ëpp fi coow. ñoom ñoo gën a yomb battre man je me focalise même sur les autres qui viennent d'arriver. ces deux ba pare. doon waxtu rek des ngir ñu daal di ndar képp lépp lu jëm ci dépôt liste électorale yi ca préfecture bu Mbàkke nag daanaka mandataire coalition yeeg yenn ci candidat indépendant yi ñu ngi ko daal ñu ngi fa daal di ñu nga fay daje ñoom ñëpp ngir fexe daal di seen liste ci élection locale yu 2022 yi lee Papa Balla Guèye Mbàkke rajo Futur Média. juróom-ñetti simili moo ci juróom-ñetti waxtu fii rajo Futur Média. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. am nay xibaar daal yi wax ni suukar bi dafa ànd ak tooke ci manga ca marché bi fi ci Sénégal directeur bu commerce intérieur nag euh, ne loolee amul xibaar la bu wérul ndax moom it di Oumar Diallo daal ne xel mënu koo nangu ndax ñoom ci seen liggéey lépp luy qualité contrôle bi dafa daldi diis lool ndax duñ ci mës a foo leexal yeeg Oumar Diallo ci euh, euh, téléphone beeg El Hadj Ndete Diop. xibaar boobu moom wérul. te vraiment xel mënul nangu sax euh, ñu nit mën a jël euh, poison wala tooke di ko def ci produit boo xam ne ni de grande consommation la et puis à grande échelle mais loolu yëpp information boo xam ne ni wérul la amul li tubaab bi di wax fake news mais rappeler rek ni que euh, Sénégal dañu am système de contrôle de la qualité des produits alimentaires boo xam ne ni loolu sax dès le départ sax bu amoon sax dafa am loo xam ne ni dafa yàqu ci produit bi dañu koy xam maanaam chaque fois que produit alimentaire war a dugg dañuy déposer quatre échantillons yóbbu ko laboratoire analyser bu ñu ko analyser ba ñu xam qualité produit bi si c'est apte à la consommation humaine ñu soog a délivrer la déclaration d'importation de produits alimentaires signé ko jox ko douane nga dem nga dédouaner ce produit mu dugg donc lii moom information boo xam ne ni kenn mënul xalaat ni que lii mën na am waxuma sax fii Sénégal mais feneen fii ci ci àddina bi parce que loolu gisuma ci ban intérêt nit am di ko def kon amul benn suukar boo xam ne nii dafa am tooke bu nekk ci réew mi amul et moom ma yokk ci lenn mooy que ñun Sénégal ki fi ñi fiy dugal suukar xam nañ leen motuñu cent motuñu deux cent une dizaine lañu te boo ci boolee ñooñu usine bi nga xam ne ni mooy compagnie sucrière ak yeneen usine yi koy utiliser ci sucre bi ñoom ñëpp xam nañ leen piché nañ len benn saaku suukar bu dugg fii ci réew mi xam nañ ku ko fi dugal te bu duggee ci réew mi xam nañ fu ñu ko jëmee donc pratiquement loolu mënta nekk fii ci Sénégal c'est impossible ñu waxtaanee lii la jàngoro sida xeex yu nag njiit réew mi daal ne dina teg ci taabal gi yeneen ñaari milliards yokk ko ci budget bi ngir daal ñu fexe ba jàppale kuréel yi des organisations civiles yi taxaw di xeex xeex wi ba ci gox yee goxaan yi président Macky Sall nag yëkkati yooyu les kàddu ni ki ci ba ñuy euh, tëj lii di sommet régional bu haut niveau jëm ci jàngoro bi di sida ci Afrique sowu jant ak centre ñu déglu kii di président Macky ci micro beeg Abdou Diouf Diagne. 73 pour cent boo xoolee ci Afrique téeméer boo jël juróom-ñaar fukk yi ak ñett ñoom rek ñoo mën di faju juróom-benn fukk yi ak juróom-benn seeni jàngoro neexul a gis boo xoolee données yooyu yëpp nag dafa daal di wane ñàkk tolloole goo xam ne nemmeeku nañu ko rawatina ci gune yu ndaw yi gune yu jigéen ñi ak ñi nga xam ne nag ñoom ñooy jigéen ñu mag ñi ñaar fukk ak juróomi réew yi nga xam ne ñoo nekk ci Afrique soowu jant ak ak centrale ñoom rek boo xoolee jàngoro ji di sida ñeenti million ak juróom-ñaar téeméeri nit am nañ ko ca boo xoolee ci àdduna bépp kon téeméer boo jël fukk ak ñaari ci Afrique la daal di nekk te téeméer boo jël tamit ñaar fukk ak ñaari yi université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru demoon na fekkee ko Nafissatou Ndiaye étudiant fon yu nekk fii ci Sénégal mer ba futt lañu def li nu bëgg mooy ñu am accès ci filière professionnelle yi li ni naqaru tamit bokk na ci jafe-jafe yi ñuy am ngir dugg ci plateforme bii di Campusen ak yeneen i doléance Ousmane Lo moo yor seen kàddu plateforme bi ibbi na ñu toog cinq jours ñu amu ci accès délai bi nga xamante ne le huit lay moon nañ ko yokk dañoo bëgg ñu daal di dugal arabisants yi ci formation professionnelle parce que xam nañ ne réew làkk kese yóbbuwu ko kanam beneen bi moom mooy ñu daal di ñuy dugal tamit ci emploi des jeunes parce que da bu dem bitim réew jàng ba ne ar ñu andi ay diplôme ñu ne ko jàkka jàng ni tey ñun benn lañ mën a def à part liggéey loo xamante ne état moo la ko jox benn liggéey la muy liggéey jàngale ñoom étudiant yooyu lee yamunu képp ci fësal seeni bëgg-bëgg leneen du ñuy naqaru bokk na ci jafe-jafe yi nga xam ni ñoom la seen mbokki étudiant yu nekk ca université Cheikh Ahmadou Bamba bu Touba di am ngir jot seeni bourse ñi nga xamante ne ñoo nekk université Cheikh Ahmed Bamba bi nekk Touba dañoo seetlu que ne jamono jii nii leen seen ni mu waree maanaam dañ leen war a fay bourse benn weer te deux weer su leen koo fay te ku xam Touba xam ne dund ba foofu demeewul noonu ku nekk dangay jóge sa kër mbokk jógee kii jóge fu soree sori condition de vie yi normalul léegi ñooñu pour nga xamante ne ñu mën a continuer seen jàng ni mu waree maanaam kooku danga koy jox bursoom si temps bi nga ko soxlaa bi nga xamante ne heure ba su jotee tak jox ko ko parce que xam nañ ne école francophone yi ñoom seen bourse stagiaire rek lu ñuy njëkk def génn wàcc si mbedd mi ñun duñ ko defa gum mais nag nit as gor bis boo ko sësee si miir bi bu boobaa mu wan la boppam Fonds des étudiants arabophones du Sénégal ñu ngi artu ni dineen wàcc si tali bi fan yi ñu dëkkmal bu nguur gi àdduwul ci seen ay revendications ci ni mu gën a gaawee rajo askan wi ONU Femmes ak ONG bi di 3FPT nag dañoo xaatim ab déggoo ngir daal di tàggat lu toll ci ñaari wala fukki junni di ay soxna ci mim réew mm. leexal yeeg Mame Abi Seye moom mooy directrice générale bu 3FPT ci micro beeg Makumba Bey dugg ci gox goxaan yi taxawu jigéen ñi ci entrepreneuriat bi pour mun leen permettre ñu gën a suqali seen liggéey pour mun a gën a taxawu famille yi pour mun a gën a aussi économie Sénégal ndax boobu xoolee ba xool dañu du secteur informel Sénégal boo xoolee ba xool ne nañu secteur informel bi day représenté quatre vingt dix pour cent te loolu boo xoolee nee nañu soixante quinze pour cent jigéen yépp ñu ngi ci secteur informel bi ci la ñuy liggéey te loolu jeexul ñu ne 85 pour cent tamit jigéen ñi ñi nekk ci secteur informel bi du ñu gañee lu ëpp 100 000 francs par mois loolu mooy wane ni que suñu lëkkaloo bi tey dafa am sens. tàggat leen pour ñu gën a am ay ay yeneen outils yu bees ci wàllum agriculture bi mais ci agriculture bi ñu ngi ciy xoolaale ay enjeux climatiques. mais ci kaw loolu waa ONU ñoom lu ñuy def. di wax ni que 10 000 femmes tey jii dinañ leen. accompagné ci phase pilot bi 5000 mi ngi déjà ci vivier wu 3FPT maanaam jigéen yoo xamante ni femme 3FPT accompagné woon nañ leen dañuy ñëw dolliwaat leen leneen wàllum entrepreneuriat te ci entrepreneuriat boobu nu ñu leen di jàppalee pour ñu mun a di dugg ci commande publique bi commande publique bi mooy lan mun a xam nu ñuy demander financement xam luy gestion commerciale maanaam xaalis boo ko amee noo koy noo koy gérer ba nga bañ ko yàq. dalal Cheikh Tidiane Diagne Cheikh maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Seydou Nourou Ba. ayca bisimilah dañu koy dal ak footballu tefes geek équipe nationale bu Sénégal bokk ci tournoi international bu Dubaï ñoom nag eh, tey ji eh, ci bu di jotee dañ daal di sóobu si seen ñaareelu jogante seen digg ak Espagne lay daal di doon gannaaw ba ñu amee ndam démb ci ndorteel gi seen digg ak ñi di waa Portugal 7 à 4 la leen Sénégal daal di gagné gannaaw bu mu jeexee nak kii di sélectionneur national bi di Ngalla Sylla am na ay kàddu yu mu jot a yëkkati ñu déglu ko ci micro yu suuf boo ñëw. yàlla may nañu ndam si kaw eh, voilà continuer waat liggéey bi parce que di wax ne vraiment Portugal moom ah, tey dugg na si match bi euh, ñun dañ si yéex a dugg moom sax moo ñu jiitaloon après noonu sax si la rawul égaliser avant après Mamadou Sylla sa dugal beneen bi muy ñaar après noonu la match bi di demee ñoom ñu égaliser waat ñu ñëw 2 ba ni leen gagné 7-4 di wax ne rek tey moom diminué na woon nañ match bi sur le plan tactique sur le plan physique di wax ne rek xale yi moom taxawaay bi baaxoon na après bi ñu waxee euh, euh, a kiiwaat erreur rek après le reste ñoo xam ne tournoi la te tournoi moom boo si bëggee génn moom da ngay gagné say match d'autant plus que fii di si ëpp solo sax mooy euh, match bi moom ñu ko fàtte bu gaaw parce que suba dañuy jëwa Espagne bi nga dafa ñàkk tey devant Émirats arabes ñu fàttali ne ñun suñu poule dafa métti parce que ñu ngi bokk ak bi ak Portugal ak Espagne te suba Espagne lan am te Espagne comme dafa ñàkk tey te suba leen war a si wax moom xanaa di jéem a def këntalaay kantaan rek pour gagner ko pour mën ko génne si tournoi bi loolu nag pour mu am il faut que xale yi rester concentré bu ñu demee hôtel aussi ñu gën insister sur la récupération parce que match dafa tegloo boo xoolee euh, dañuy jouer fii ba samedi amul noppalaku donc euh, di ñaan yàlla rek euh, yàlla mayaan ñu ndam suba si jàmm incha allah. wàllu football la yoon ak Ligue des champions tey jii danañu daal di kon bokk yeggali lii di commencé match yu ñu njëkk diggante Real Madrid lay daal doon ak Shakhtar Donetsk Porto moom dana fekk Milan AC bu Fodé Ballo-Touré ca euh, dëkkam ca Italie Sheriff Tiraspol moom moo di équipe surprise bi ñoom 20 seen digg ak Inter de Milan lay daal doon Manchester City googu lay jamono itam dana daal di tas ñi di waa euh, Bruges euh, choc bi nag diggante diggante Liverpool ak ñi di waa Atlético Madrid lay daal doon Liverpool bu Sadio Mané vingt itam diggante euh, Leipzig di club Allemagne ak Paris Saint-Germain bu Idrissa Gana Gueye ak kii di Abou Diallo Borussia Dortmund moom dana tase ak ñi di di waa Turquie ñoom danañ daal di dem ci Portugal tase fa ak ñi di Sporting Club bu Portugal match yooyu la incha allah dañ ko daal di door ci bu vingt jotee démb nag ca ba ñuy door mbir euh, ci groupe E Bayern Munich moom dafa lal di am ndam du yaatu ci digganteem ak Benfica 2 ba pare daal di qualifié ci wàllu huitième de finale FC Barcelone moom démb euh, daal dina éviter piège bi nga xamante ñu ngi doon euh, amal foofulee ci Ukraine seen digg ak ñi di waa Dynamo ñoom ñoo mujj am ndam benn bal ci dara seen diggante ak ñi di waa Dynamo bi ko dugal nag moo di Ansu groupe F bi Villarreal bu Boulaye Dia jota football moom daal dina am ndam ñaar ci dara diggante ak ñi Young Boys bu Berne Atalanta Bergame euh, diggam a ràññeeku mm. moo di bitu égalisation sax euh, mu ngi ko dugal ci njeexitalu jongante gi ci groupe G bi Wolfsburg ak Salzbourg deux buts à un pour waa Allemagne waa Wolfsburg Séville moom dafa dal di ñàkk ci digganteem ak Lille pour France deux buts à un loolu mbetteel la. Mhm. ci groupe H bi nag Malmö euh, di club bu Suède ñoom dañoo daal di ñàkk seen digg ak ñii di waa Chelsea bu Edouard Mendy démb. benn bal ci dara Juventus Turin moom itam bokk ci équipe yi jot a qualifié ci wàllu huitième de finale daal dinaa am ndam démb ci digganteem ak ñii di waa Zenit Saint-Pétersbourg club Russie 4 buts euh, à 2 ñu daal di ko jeexaleeg euh, wàllu euh, basketball ak résultat tournoi de montée première division ni ki démb ci wàllu résultat Tamba Sport mu dafa dal di gagné ñii di waa MBC bu Kébémer 59 à 47 Fatick daal di gagné wala boog ñàkk ci diggantam ak US Parcelles Assainies 66 à 54 Renaissance sportive bu Yoff ak UCAD Sporting Club 76 à 60 pour waa Yoff li ci des na ci wàllu jogante dañoo ko fas yéene yegg ni ki ba tey ci stade Marius Ndiaye diggante RS ak UCAD Kolda basket club dana tas ñi di waa Port Fatick basket club diggante mag union sportive bu Parcelles Assainies googu lay jogante danañ ko daal di amal ci piscine olympique bu Ndakaaru ci bu 16h30 jote kon boog mhm. fii lañ koy daal yemale xibaaru tàggat yaram yi. mu ngoog jërëjëf Cheikh rajo bi gën a jege xibaar ñeel caat dañ ci ànd ak euh, Ndete Diop. dalee na jàmm. Sénégal yépp di may nopp jury yi nga xam ni moom la ñu joxoon liggéey bi jëm ci wàllu grand prix littéraire yi di Goncourt ak Renaudot doomu Sénégal bi di Mohamed Bougar Sarr ba léegi ma nga ca course ba ak téereem bi mu duppee la plus secrète mémoire des hommes moom ndawub sénégalais bi mooy kenn ci doomi Afrique yi nga xam ni ci jamono ji bokk na ci course bi siiwal ki jël raaya prix Goncourt ak prix Renaudot ñu fa yéene ko jibal niki tey ji ci àllarba ji seetlu bi ni ci jamono ji réew mi ñëpp daal ñoo ngi may gët ak déglu ba bopp yi te yaakaar lool Sénégal am ci ndam jaarale ko ci doomam ji di Mohamed Bougar Sarr ci wàllu woowu sax Oumar Pène lead vocal bu super jamono di féliciter que encourager Mohamed Bougar Sarr asalaamaaleykum Mouhamed Mouhamed maa ngi lay ñaanal bu baax déjà kontaan naa si yóbbante bi am na solo lool di nekk si biir nag itam am na lu mu si jot a gis yàlla yóbbu nga ko fa sore sori sori li ma lay wax rek mooy eh, yal na yàlla may ndam ndam yi am nga ko ba pare sax. ndax lii moom defe naa ne kuñ ci tudd rek. xam nga ci ndam rawatina nag nga dem ba jege maanaam bokk si ñi nga xam ne ñoom lañu ñu mujjee ndax ndam la yàgg na ndamu Sénégal la ndamu Afrique la ndax doomu Afrique donc daal du ma def lu dul la ñaanal yàlla ñu des ci wàllu ko bind ak ñaar fukk ak juróom-ñeenteelu ko édition bu bés bi nga xam ni ci àdduna wërngal këpp moom la ñu jagleel bindkatu dendu Afrique ñu fas yéene koo màggal juróom-ñaari fan juróom-ñett ak juróom-ñeenti fan ci weeru novembre bi wàllum littérature ak ci jamono ji nga xam ni ci la ñu nekk ci wàllu numérique ban gis-gis lañ ci am loolu di xët wa nga xam ni moom lañ ci fas yéene waxtaanee mbir mi nag ñoo ngi ko fas yéene amal ci patronage yu njiitu réew mi Macky ki di jëwriñ ji ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu aada ak cosaan Abdoulaye Diop moo ko fas yéenee jiite colloque bi nga xam ni nag moom lañ ko fas yéenee ndar kàppe ñu koy amal juróom-ñeenti fan ci weeru novembre naatangoom bi nga xam ni moom la ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu économie numérique di Yankoba Diatara moo ko fas yéenee présider kañ ko ndeyaneel nag di Rahmatou Samb Seck moom moomu nga xam ni moom moo jëloon raaye bi ci grand prix chef de l'État ci wàlluk mbind réewum Rwanda moom mooy pays invité d'honneur bi conseil national de régulation de l'audiovisuel di CNRA autorisé na maison de production bi di Evenprod mu wéyal diffusion séréem bi di Infidèles saison 3 CNRA di xamle ni la mu fa bëgg rek moom mooy ñu respecter lépp lu jëm ci wàllu valeur culturel ci production audiovisuelle yi suñu ndaw di Moustapha Diakité ma nga woon ca ndaje mi doxoon diggante CNRA ak waa Evenprod ni ki démb conseil national régulation bu audiovisuel yëkkati daan yi mu jëloon teg ko si ndodd kër gi di Evon Prod li waral loolee bi ñu sukkandikoo si Babacar Diagne di njiitu CNRA di bañ a indi gàllankoor si production audiovisuelle si réew mi. waxtaan nañu bu baax dëgg dëgg li ñu ma wax doy na ma li ma wax doy ma ñoom dinañ tenir compte ci valeur yi ñu ma ko wax ñun amuñu benn intérêt di arrêté ay production kon infidèle incha mën nañu reprendre seen liggéey def ko normalement. waaye terewul di xam ne ni war mal jikko yu baax yi si série sénégalaise yi njiital CNRA di si àddu donc lu ñu bëgg ñun ci waxtaan mooy ñu fexe ba ñi nga xam ne ñoo war a chaîne yi ñi def production yi def autorégulation mooy képp ko xam ne nga gis loo xam ne ne baaxul nga ah, xel si kër gi di Evenprod waaye di leeral li infidèle série bu sénégalais yi naw la Chérif Diop directeur délégué bi yor wàllum performance opérationnelle lu ñu dégg-dégg critiques yi nañu bàyyi xel ni série la bu nga xamante ni c'est une série de niveau A en termes d'audience maanaam série la bu nga xamante ni du ñu ne lépp baax na mais tamit du ñu nangu ñu def Evenprod di yëgle ba tey ni ñaari série sénégalaise yi taxaw ngir aar ànd ak cosaan ñoo ngi si yoon benn bi tudd Vautour beneen bi Njabar cinéma la ñuy jeexale ak waajtaayug ñeenteelu ko édition bu Dakar Court di festival international biñ jagleel lépp lu jëm ci wàllu court métrage fii ci Ndakaaru cinéma rek bu Molikan moom moom nga xam ni moom moo tëgg xew mi àndandoo ak waa institut français ak waa ministère biñ jënk lépp lu jëm ci wàllu aada ak cosaan fa séenee dajeek taskatu xibaar yi ni ki tey jii ci salle de cinéma bu institut français dakaar Court ñeenteelu ko édition bi jàpp nañu ko juróom fan ba ci fukki fan ya ak benn benn ci weeru décembre wi di ñëw jageen jëf ci déglu bi fii la ñuy yem dig daje ëllëg. Savon de Marseille Alphé, CCPS, comptoir commercial de plomberie du Sénégal. Déodorant Malaysia Yomo, ñoo leen di may li ci yéen yi. dañ ca ndagal Hadj Assane Gueye. palu gi ñeel gox-goxaan yi bu 23 janvier 2022 ci Sénégal am na du ñàkk leneen lu ca laxasu lu aji politique yi waxul sunu ko.